dañu ñaar a njarante ñaar relation politique. Ah, ak relation état. Ah, baax na daal benn. ça c'est la première chose. firnde li ma ciy indi mooy xam nga président Macky bi mu toogee ci bopp réew mi recevoir na fi Marine Le Pen. Mhm. mi ko recevoir woon en janvier deux mille vingt trois Marine Le Pen xoolal li muy représenté ci bëtu africain yi. ak ni mu parti boo xam ni c'est un parti raciste. nëbb ko wane ko président de la république nekk au pouvoir recevoir ko hmm. bañ na ko ba sax bëggul woon ñu siiwal hmm. visite ba hmm. visite bi ñu ngi ko defoon janvier 2023 xam nga kañ lañ koy soog a yëg mars 2023 moom président Macky Sall sàkk woon sax ni bu ñu am benn photo bu ñu jël publier ko ci toogaayam mook Marine Le Pen loolu am na fi ñaareel bi gis nañu président Macron jamono yi Ousmane Sonko nekkee ci kujje gi mu yónnee ko ab émissaire émissaire bi mu ko yóbboon mu ngi tudd euh, na Nadège Chouat nekk ka ñu taftal ca ka jiite cellule bu Élysée bu cellule Afrique bu Élysée euh, président Macky Sall ci ginnaaw gi dem na ba ni lu tax Macron di yónni ab émissaire ci sama opposant est-ce que loolu dafa tax mu am lu mu yàq ci digganteem ak Macron ba bi mu jógee ci nguur gi Macron di ko dénkaat leneen. donc il faut faire la part des choses entre les relations politiques et les relations de d'état état état muy benn. ñaareel bi itam defe naa wax naa fi léegi réception bi ñu defoon président de la République def ko ak Marine la Pen. Mm. nga xam ni ko ko doxoon sax homme de réseau la. muy Philippe Bonne. Mm-hmm. nekk koo xam ni mooy tubaab yooyu rek nga xam ne dañ nekk ci Afrique. Mm-hmm. ba léegi di dawal mbiru France Afrique. moom moo doxoon ci diggante bi ba visite boobu am. muy benn. Euh, ñaareel bi itam. li nga ñu bëgg a wax foofu mooy. Euh, visitu Mélenchon. waay mënta am euh, lien ak ñuy relation Sénégal digganteem ak France. pas du mënu cee yàq dara daal du tout pas mooy exemple yooyu ma la jox. beneen bi itam. Hmm. xam nga ñii dañ ñëw woote souveraineté. Hmm. mais souveraineté dafa ànd ak ay acte ak ay messages yooyu lancé. bu fekkee waa Pastef ñu toog ci nguur gi. Hmm. amuñu sañ-sañ. Mélenchon sàkku ci ñoom ni dafay visiter. ñu ñu ko gars yi ñëwal kon boog souveraineté boobu ñuy wax gëmuñu ko. il faut envoyé des message très clairs et des signaux. ça en politique il faut l'admettre. Mm. donc loolu yëpp boo ko boolee daf lay wan ni quand kii surtout que jamono ji ñu toll tembe nga xam ni Mélenchon mm. ak Sénégal daanaka ñoo bokk gis-gis ci la question palestinienne.